amaaleykum sama gars yi ñàkk a teew Ousmane Sonko démb ci tribunal indi koy jafe-jafe Ndeye Khady Ndiaye jàkkaarloo woon ak Adji saar di jaamaarloog moom ci façon massage si nangam nangam seeni avocat mënu leen a layal ba nuppee nag ña waroon témoñ témoñ nañ ñay weddi weddi nañ waaye lees ci man a jàpp mooy Adji saar wax ju ñaaw joxalaat wax na ko fa procureur nag attewut waaye nee na dafa bëgg ñu tëj Ousmane Sonko fukki ati kaso Ndeye Khady Ndiaye juróomi ati kaso maître El Hadji Diouf daal ne fu Ousmane Sonko fekk fu ñu fekk nañ ko indi contrainte de corps Adji Sarr dafa bëgg Ousmane Sonko fay ko un milliard cinq cent millions ci ndàmpaay ki yor kàddu gi nag te war a atte alxamesu suba bii bu dellusee muy premier juin nee na ci lay joxe résultat yi lii xew tribunal bari na bariwul euh, Doudou Ka këram dañ ko attaqué Ziguinchor force de l'ordre yi jàmmaarloog xale yi boori kër Ousmane Sonko USAID euh, jox Sénégal dix huit milliards ngir jàppale ko ci xeexu wàllu démocratie Amadou Ba limaani jëwriñu Sénégal daal ne inondation yi di ñëw Sénégal jël na ay mesures ngir mu bañ a am.